Adja Aïda Diop bii ci jigéen ñi toujours ma di ko wax bu ko neexee tiitaru moom laa njëkk a may wérdu ci kaw suuf Aïda Diop mii te imam Moussa Guèye tax man diiru li Alaa di di dund yëpp ku ma mos a ñaan tarixa bi dama lay jàpp ci loxo yóbbu la ci moom wala comme ma ne yóbbu ko ci kooku ba ci Fama Wade bi ma ko yóbboo ci sëñ Abdou sëñ Abdou ma ne yóbbu ko ci sëñ Mor ma yóbbu ko ci sëñ Mor mu jox ko tarixa bi. ba bi sëñ Abdou génnee àddina 97 ah, Adja Aïda 98 la wala 80 lan Aïda Diop kañ la jëloon tariixa bi yaa ngi koy fàttali bi Alaaji du génnee àddina la daal jàppatuma 97 la wala 80 97 la sëñ Abdou génne àddina waaye su ma juumul 98 la waaw ca ca déwén sa muy 98 kon boobaag léegi ça fait 20 ans wala déet muy Aïda Diop bii. moom laa njëkk a may tariqa bi ci kaw suuf imam Moussa la ma fekk këram ñuy waxtaan maag imam Moussa mu ñëw di ñaan tariqa bi imam Moussa Guèye imam Moussa ni ko aw ma ndigalal joxe tariqa bi mooy aw ma ijaaza ci jamono booba amu ko woon waaye yàlla def na shérif mii am na ijaaza mën na laa jox tariqa bi bu la doyee ma ne ko déet imam yow yaa ko doy man gan laa rek bu ñëwoon sa kër seet si la ay la ne ma ku imaam Moussa doy kañ doy na ma jox ma tarixa bi ci laa ko joxe tarixa bi ba léegi xaw ma ñaata nit laa jox tarixa wax dëgg yàlla man du may compter defuma comme gaa yi waaw waaye bu ma doon compter moom wóor na ma ne ay junni la moom loolu moom wóor na ma waaye du ma compter nag maa ngi ko jëlee it ci sëñ Abdou Aziz Al Amin dañuy waxtaan bés maag moom mu ne ma bi Seydi Boun Omar ñëwee Sénégal gannaaw 1947 bi Seydi Tayyib ñëwee Sénégal ba ñibbi Seydi Tayyib 47 la fi ñëwoon ñibbi Boun Omar ñëw bi Seydi Boun Omar ñëwee def tournée sëñ Babacar si dalal ko mu dem Cheikh al Islam dalal ko mu def tournée africain Afrique daanaka dëkk bu ci dem bariwul bi mu ñibbee Maghrib Maroc benn journal bu daan génn majalla bu daan génn ci àddina bi ñu def ci nombre de personnes yi mu jox tariqa bi ñu bari lool di ay junni junni junni nit mu ne sëñ Abdou ma am ñu ñëw ci sëñ Babacar ne ko si shérif bii de barki dem na fi ñëw rek ñibbi def tournée gis na ñaata junni nit la jox tarixa bi te yow mii yaa wóor nañu ne yaa ko ëpp loo ko jox tarixa bi suñ sañoon nga wax ñu ñaata nit nga jox tarixa bi ñu def ko ci journaux yi ñu bind ko mu ne sëñ Babacar muñ ne mbir de bu fekkee yàlla tax ngay def ndax jar naa bindam mu ne loolu la ci sëñ Babacar si teg mu ne mbir de bu fekkee yàlla tax ngay def ndax jar naa bind te ñoo bàyyi noonu rek Babacar xam na yàlla xam na mu ne ci la leen waxee ne xanaa xamu leen ne bokk na ci martaba bi gën a yées ci tarixa bi te man Babacar am naa ko bu yàgg te tooguma fii ma toog ndax dégg ngeen wax bi bu waaj moo ne bokk na ci martaba bi gën a yées ci tarixa bi ku doon seex na Tidiane yi te fii ma toog toogoo fan mooy nekk xutbul fardul jaami mu ne te booba tooguma fii ma toog mu ne mu ngi mel ni nga am juróomi nit yu bokkul sëriñ dem ci géej gi sangu def def yaramu neen sangu génn xalangu ci suuf si ci beeñ bi ñëw ci kekk li xam ngeen kekk godoron walla kekk ciment fuñ cimenté kenn ku ne ci ñoom ñoom ñoom juróom ñi kenn ku ne taxaw fëggu kii ñëw taxaw fa taxawoon fëggu kii ñëw taxaw fa taxawoon fëgg ñoom ñen ñoom juróom ñëpp ñu bokk fuñ taxaw fëgg seen suuf yi leen takkoon duggaat ci géej gi sangu dem ñibbi dem ñibbi teg mu ne yow mi nga xam ne yaay taalib yaay sëriñu kenn ki nga ñëw sëgg ci fépp suuf siñ fëggoon tepp bu taxoon sa taalibe nga for ko mu ne man Babacar ba may am boobu martaba tolluwuma fii ma toll xaw ma nit ñi dégg nañ li ma wax wala déet waaw xanaa loolu gën a jafe compter say taalibe mu ne waaw man Babacar bu may toll fii fii ma toog tooguma fi kon lu may weññee taalibe mu ne te xanaa xamu leen ne ku doon mu Cheikhu na Tiijaan yi te muy dëgg pire mel ni man Babacar toujours ma wax ko nag moom yàlla def ko mayoon wilaayam dafa ànd ak kàddu lu ko neex wax te yàlla du ko ci jàpp am ñoo xam ne seen wilaay booy wax yàlla dégraté la wala mu sanctionné la ndax yàlla daf leen noppiloo moom nag ci wëli yi yàlla wax loo la bokk mu ne xanaa xamuloo ni man Babacar fii ma toog lépp lu ma mayee ci nit ci tarixa bi may naa ko ci ay jinne ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgul nit taalibe yi toll ci jinne yi noonu lañ toll ci nit ñi nañ doyloo yàlla